بقي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي ديلي سوات كي ليغا خامي ني موي daje bi ñuy daje ci téere borom bi subhanahu wa dañ nañ ko ñaani woon démbit jàpp nañ ni nit ñi ku nekk xam na ko nit ñi toog fiñ toogoon bi ñuy julli kuy dem ci miir ba it nga seet matukaay yi ñu wax nga jëm koo jëfe te mooy lum bon bon ñëpp sori lu lum néew néew lii di lu tolloog un mètre kon tey mooy suñu ñaareelu daje ci shahru ramadan ci téere borom bi dëppoo suñu ñaareelu daje ci suura bi di suuratu nuur ñu war a jël tey la nga xamee ni mooy fukkilu aay bi ak benn fi suñu borom di waxee ni inna lazina jaa'u bil ifki usbatun minkum incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare nañu bàyyi ko mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk فيكم <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني سبحانه وتعالى مني إن الذين جاءوا بالإفك نيغا خمني نيو ديكي دور الوا عصبة منكم بن مبولو mbooloo lañu ci arab dana kay wax fukk ba ñeen fukk la tahsabuhu sharran lakum waye yéen fami yonent bi ak fami abubakar bu len jàpp ni li lu bon la ci ñeel len bal huwa khayrun lakum bal li am kay moy li yiw la ñeel len li kulli imri'in minhum maktasaba min al ism amma na ca ñi indi dooral wa dana ko ñeel lu tol ni la mu faggu ca bakkaar ba wallazi tawalla kibra ka nga xam ne nag moo féetewoo la gën a màgg ca mooy moo ko sos minhum ca ñoom lahu azabun azim dana ko ñeel mbugal moo xam ne mu màgg lay doon waaw yéen julit ñi lawla istami'tumuhu lu teewoon bi ngeen déggee duural wi ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا مجرد جيجي دولت نيو غورني اف نيو جيجين ني كيسن بكان ليدي او يو وقالوا هذا افكم مبين ني ليدي نيكول لودول او دورال و خامني بو لير ناني لا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أنا لوتيون بلا نكو واخ ني اندي نينتي سيدي فإذ لم يأتوا بشهداء سدي إلو نسيد يدي فأولئك عند الله هم الكاذبون نيوم دكون تي الله نيوم نيفن كدي ولولا فضل الله عليكم ورحمة بدلوانا جني لي يالا أجير ماديم في الدنيا والآخرة تأدنك الآخرة دي لمستكم فيما أفدتم فيه دون لن لالي ca nga xam ne yéen a ngi doon wàcc di ca xuus azabun azim lii nga xam ne muy mbugal bu màgg la mi ngi noonu bokk jullit démb jàng nañu suñu boroom du ubbi suura bi di suuratu nuur nga xam ni kër gu ko jëfee leer kese lay doon réew mu ko jëfee leer kese lay doon mu bokk lam gën a fekk mooy lépp lu jëm ci njaaloo ak tuumalante njaaloo suñu borom indi ci ay loi képp koo xam ni njaaloo na nañ ko duma sunna teg ca ni bu ma see sëy nañ ko rey ku fi tuumaal nit ak njaaloo itamit ci indiwul ñeenti seede nañ ko duma léegi nag suñu borom yàlla ñëw bi indi nattu nattu boo xam ni mi ngi koy teg ci kan ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam di ko teg ci soxnaam bi mu gënoon a bëgg ci ay soxnaam di ko tegit ci abu bakar as-siddiq ak njabootam ca loolu mooy lan mooy li ñu dóoral suñu yaay Aysa ni daf doon njaaloo ca àll ba moo benn sahaaba bu ñuy wax Safwan ibnu Mu'tal Aysa moomu nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa na Jibril won na ko ko ñaari yoon ci gént fotoom na ko kii day sa soxna mooy sa soxna bi mu ko xooli muy Aysa yonent bi musul takk benn jigéen buy jànq kudul moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril mosu koo fekk ci benn néeg fudul ci néegam yonent bi sallallahu alayhi wa ngi faatu ci la nga xam ne mooy kaw fooju ay ca wetam ga la tëdd fa la faatoo sallallahu alayhi wa sallam waaye suñu borom mi natt ku ko neex nattu yonent bi dem na ci benn xare ba mu demee ci xare ba lu bari ñu ne bànni mustallaq la woon bu ñu daan dem ci àll bi la ñuy nekk di dox di camper di dox di camper arme bi su ko defee suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam heure boo xamee ne nii camper na ci benn place heure boo bëggee départ am na lu ñu tudde xew dëcc ñi seetaan film indo yi dañ ko gis muy benn paravent boo xam ne dañ koy def di ko yëkk ci di ko teg ci kaw giléem yi booba yaay Aïcha nekk na ko tuuti gaa yi nga xam ni ñooy ñëw pour yëkkati ko teg ko ci kaw giléem bi ñëw yëkkati a hëw bi rek teg ci giléem bi giléem bi dem ndax moom mooy soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn daw ko bàyyi ku nekk jàkkaarloo moom di ko teg bët fekk li yàlla lay dogal su ne Aïcha day soxla woon na boppam ca désert bi lañ nekk bëgg na dem la nga xam ne soxla boppam génn na armée bi dem ci àll ba wéetu fa pour faj aajoom ci diggante bi yonent bi alei salaam joxe ordre ñu départ bi ñu départee ca la loolee am yonent bi dem na armée baa ngay dem ay Aïcha ñëw gisul kenn mu daldi di jaaxle jaaxle daal dina ak ah, garawul xam naa léegi yonent bi xool hëwdaj bi bu ma gisul yéen ñi ma jël si mu daal di toog fi mu toogee yàlla dogal mu nelaw ñee na moom moo koy li gannaaw histoire bi ki nga xamee ñu ni moom mooy Safwaan moom da daan def bu armée bi jàllee ca gannaaw la daan nekk bu ko defee nag topp armée bi bu dee am na lu wadd mu for ko su amee noon yi leen di dabit moo koy jëkk a gis avertir Aïcha nee na dama toog mujj rek dégg inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nee na bi ma nee xifet jàkkaarloog safwaan safwaan xàmmee na ma jiitu ñuy imposé njabootu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy muur seen kanam yi yëpp à cent pour tegu ci lu dul wàcce giléemam ma daldi ñëw yéeg ci giléem bi mu wom mat giléem gi ñuy dem bi ñuy dab armée islam booba ci bëccëg la ñu dab leen yeneen bi alayhi salaatu wasalaam recevoir ko ñu daa di duggaat ci armée bi fekk ne naafiq yi fu ne ñi ngi ut bunt buñ jaar ci yonent bi amuñu ko keroog nag am nañ occasion nag abdullah ibnu ubay yéefirub naafiq ba nekk ci naari jahannam daa di ne waaye xam ngeen ne ñaar ñii mbir ci àll bi ñii day kenn muccul ci sa moroom moromi na fiqi mi rey ñu koy wax manipuler <clears throat> affaire bi dem ba ñuy si Madina ku nekk dugg sa roq di wax ay day ca àll ba la beroog Safwaan bàyyi armée islamique mbir ma dem na dem na tasaaroo na ba wax ji dem na ba egsiwaat ci yonent bi sallallahu alayhi ah léegi affaire bi nag doon problème yonent bi yéeg na ko ñi sos yéeg na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba woote sax conseil wa man li may dégg nit ñi di ko wax lan mo ci seen xalaat woo na ali woo na barira mi ngi noonu woo ñum usama ñi nekkoon ci kër gi ala kulli xaal seede nañ ci moom loo xam ne nii lépp lu baax la ah mbir ma dem na dem na ba benn bis suñu yaay aïcha radiallahu anha moom yëgul ci mbir mi dara yëgu ci dara xam ne ne daal yonent bi alayhi salaam joxatu ko benn cër loolu mu xam na ko kafatul ak moom réewatul ak moom waxatul ak moom affaire bi jaaxal na ko waaye bis la dem ci àll ba ànd ak yaayi mistax mistax jarbaatu abubakar la bañ fajee seen aajo bay nibbisi soxna si fakastaloo mul faam daal di ne taay sa mistax waay mistax yàlla na dee waay Aysa na ko waaye looy wax ni xanaa xamoon ne mistax demoon na Badr mu ne ko wax xanaa déglu ma nett li mu ne ko lan la la nett mu wax ko wax ji mu ji ni ñu wax ci dëkk bi Aïcha na ko ñi ngi wax loolu ci man ci dëkk bi mu ne waaw nee na ma ñëw nag daanu feebar daanu feebar di jooy guddi di jooy bëccëg waaye yonent bi alayhi salaam bu ñëwee it sama néeg danaa naka ngeen def rek jeex na mujj gi ma ne ko léegi dama bëgg nga may ma ma dellu sama ma dem sama kër yaay ndax damaa feebar ah mu nekk na ko demal mais yonent bi nee na dem na Aïcha dem na mi ngi jooy guddi mi ngi jooy bëccëg benn bis sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jaaxleem dem na ba ci kaw minbar bi mu ne ay yéen nit ñi man day yéen a nga dégg wax yu am sama kër wax joojee ñi ngi koy wax ci sama soxna bi nga xam ne xawma ci moom lu dul lu baax ñi ngi ciy tuumaal góor goo xam ne ba mu duggee ci lislaam ba tey xawma ci moom lu dul ak matal wor loolee day am na koo xam ne nii yëkkati na wax ju ñaaw jooju jëme ko ci man ak sama famille bi loolu amee Saad ibnu Abi Ubaada daal di jóg taxaw da ko yow mi yàlla yónni waxal kan la su bokkee ci waa Aws mooy giir gi ma bokk dañ ko rey su bokkee ci waa Xasraj dañ ko rey ak cet doo jóg ko ci waa Xasraj am ñu jóg na ko waxoo dëgg bu bokkee ci xas rek dara nga ko dul def coow la na kur yonent bi dalal leen dalal leen dalal leen wàcc ci suba ga mu dem kër abubakar mi ngi fekk aycha nga jëy guddi aycha nga jëy bëccëg mu ñëw ne ko aycha bu dee ne lii nit ñëpp wax yaa ko def tuubal dellu ci yàlla ko tuub yàlla baal la su dee ne defuloo ko muñal muñ ko rafet ba yàlla di atti say mbir Aisha nee na sama papa doko tont muna mu ne ah xaw ma lu ma koy tont ah yaay doo ko tontu ma koy tontu nee ma wax rek la yanku ba waxoon wallahu almusta'anu ala ma tasifun yàlla lay dimbali ko ci li ngeen di wax nee na wëlbati ko man ca côté mur ba continuer samay jooy mu ne wallahi yonente bi alayhi salaam place boobu jógu fa ludul dul yàlla dan jappé bu wëhi de wàcc moom jàpp ko nga xam ne bu doon jamono sedd nit ñi di kof kofi moom day ñaq tuy xëpp di siit bi mu fiiree ko lam jëkk a wax mooy ah abshir lii bégal yow Aïcha yàlla de moom setal na la waaw yàlla de moom setal na la ca la commencé jàng ay yi ñu nar a jàng ay bu jëkk suñu borom ne ñi indi duural wi day if ko mooy fen woo xam ne da nga caa ay nit ñi indi duural bii day mbooloo lañ ci yéen jullit ni mi ngi noonu waaye yéen famille Aboubacar yéen famille yonent bi bu leen jàpp ne musiba la ñeel leen bal yiw la ñeel leen ca mbokk jullit xam nga luy musiba mooy lépp loo xam ne dalay jëmee sawara loolu mooy musiba waaye lépp loo xam ni day yokk say tuyaaba jëmale aljanna loolu du musiba ca bokk ci yow ab jullit ñu tuumal la ci loo xam ni defoo ko loolu nattu la yu yàllay wàcc ci sa bakkan la na fi amwalikum wa anfusikum lolé yiw la ñeel la donte ne nag dana and ak nakru xol bu den japp ni yiw musiba la bal yiw la ñeel leen ñaareel bi mooy Bakar bii Tasaro ku nekk la nga ca faggu da nga ci am lu tol noné ci mbokk nañ moytu fitna bu ñëwee bu ñëwee yi ku nekk da kay jot am lo ci yok kee jot am lo ci yok képp koo xam ne jot na ko jottali ko keneen wax ci leneen suñu borom mu ne kenn ci ñoom yëmul ak sa morom loo cay am ci bakka am maa nag ko sos sos wi jëkk koo yëkkati kooku moom mbugal bu rëy mi ngi koy ñeel ca mooy abdullah ibnu ubay muy wañe ni musiba ñaar la benn sos ko ñaareel bam nag moom mooy nga répété ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne waaw yéen jullit ñu lu tee woon bi ngeen déggee wax ji ku nekk ci moom ci yéen xalaat ci boppam lu baax ca ne lii day bu doon man du duma ko def kon lii aïcha du ko def safwan du ko def ci yeneen waxtaan du yàggul dara doon nañ ko fàttali kii di abu ayub al ansari radiallahu anhu bi yonent bi demee madina këram la dal bi histoire bi avant muy dem kër boppam bi histoire bi amee bis soxnaam umu ayub nee na ko waaw abu ayub waa li ñuy wax ci ay moom dégg nga ko mu ne ko dégg naa ko kay mu ne ko ah, loo ci xalaat mu ne ko ndax bu doon yow da ko def mu ne ko ah déedéet mu ne ko Aïcha la gën gën say ndey yaa ngi dégg kon rafetal njort ni liñ koy waxal defu ko gis ngeen loolu la yàlla mujj wax lu tey woon ñu njort yiw ci seen bopp ba pare ñu ne lii day duural wi biir la waaw gaa yi li ñu leen di laaj nit dana dem jël jabari jàmbur njaaloog moom ci àll ba ba pare teg ko sa bileem jiital ko indi ko ba ci armée bi ci jëkkëram loolu mas ngeen a gis loolu la ku ne xam ne ne ay nit buñ demee defas njombee fañ ko defee buñ paree kay day jaar gauche kay jaar droite waaye jël ko indil ko boppam ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te da nga beroon ci àll jaaloo mu ne xanaa xam ngeen ne lii duural la boo xam ne bu leer naññ la loolu mooy de un mooy boog de sax ndax yàlla ne ni premièrement waroon ngeen jort seen bakkan ni man en tant que jullit du ma def lii Aïcha du def lii ñaareel bi mooy lu leer la ñetteel bi mooy même bu doon tene ne kenn ci yéen bokkoon na ci ñu leen gisoon ñuy njaaloo ci àll ba waaye amuleen ñeenti seede lan moo tax ngeen di ko wax ci suñ borom wax nañu ci suratu nisa suratu nuur ne balaa kenn waxum njaaloo na ngeen mat ñeent loolee kon di beneen ñetti lu mbir bi borom bi subhanahu wa taala ne xanaa xamu leen ne bu ngeen indiwul sayda yooyee te yàlla moom ay fenkat ngeen na am mbokk julit wax nañ ko ci waxtaan yi passé ñetti nit ubbi am néeg ñoom ñëpp seeni bët tegee ci njaaloo gi biir bu ñu àndee ca attekat ba wax ko attekat bi da leen di wax kat ngeen téye leen duma leen donte ne ne ci mbiri aduna wax nañ dëgg waaye ci diine yàlla ay fenkat lañ mi nga noonu nga mel rek naafiq yi bi ñëwee ci yonente bi alayhi salatu salaam nashhadu innaka la rasulullah gaa yi waxuñu dëgg waay yonent yàlla huwa rasulullah waaye lu ci yàlla teg yàlla mu ne mi ngi seede ne naafiq yi dañuy fen ndax ci yàlla dañuy fen loolu ñu ne seede nañ ko waxuñu dëgg loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa ni ne bu dul woon a ngëneelu yàlla yu jiitu ci yéen jullit ñi ak yërmandeem kon mbugal mu tar doon na wàcc ci yéen ci duural gi ngeen duural soxna su baax si ca loolu itamit muy yëkkati daraja yi Aïcha waaye it dañu xamal ni ndikate jiital jëf ju baax baax na de mbokk jiital jëf ju baax day tax bis boo duggee ci tuuxi yi jëf ju baax joojee mën laa xëccali jëf ju baax joojee mën laa xëccali loolee ñu bay ci xel bu baax su ko defee moo tax ba li ñuy tuddee kabairu zunub doomu aadama bi suñu boroom nee na bu ko bu defee nangam safara la jëm doo tax mukk abadan ñu ne def na nangam joojee dañu koy tuumal ci sawara mbir bala laa yóbbu sawara tey fekk li ñuy tuddee almawaani amu ca mooy la nga xam ne mooy dox mooy tey loolee am te moo di ne ni am nga jëf ju baax ju ko fanq wala mën naa dem ba ñaan yële jullit ñi ñaanal keroog ba ñuy jullee sax yàlla subhanahu wa taala mën na la caa baare moo tax borom bi subhanahu wa taala wax loolu waaye it ngeen bàyyi xel ne yàlla sahabatul kiram lay waxal moo di ne ni budul woon nag yërmande yàlla ak ngëneelam ci yéen adduna ak alaxira kon mbokk sahaaba yi yàlla saxal ne dana leen jox ngëneel adduna ak alaxira looloo tax ba képp koo xamee ni gis nañ muy tuumal sahaaba yooyu mbokk julit dangay ngay gis ne weddina alxuraan weddi goo xam ne nii benn sikk sàkk amutu ci mi ngi noonu kon Cheikh Ousmane. إذ تلقونه fikum suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne is talaqawnahu bi alsinatikum ba ngeen koy joxalante ci seen lammiñ ya wa taquluuna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm ngeen di wax ci seen gémmiñ yi loo xam ne amu leen ca xam-xam wa tahsabunahu hayyina ngeen di koy jortu ni lu doye di la wa huwa inda allahi azim donte ne nek na ci yàlla wax ju mag lol walaw la is sami'tumuhu mu lu teewon bi ngeen ko degge qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha ngeen ne day yelul ci ñun mukk ñuy wax ci mbir ñuy wax ci mbir mi subhanaka sallallahu ñel na la hadha buhtanun azim لدي أو دور الله بوخم نبو مغلا يعزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يلا مغلين دي قبو تي دلين وار نجن دي بانيا دلو تلو ملني مكو تأدنا إن كنت مؤمنين سلي نك نجن دي أجيغم ويبين الله لكم الآيات يلا نجلير النيلين أي آيام والله عليم حكيم يلا أجي خملا أجي خيرين ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه نيغا خامني داي دانيو بڬ تي موي تصارو اي نياوتيف في الذين امنوا تي نيغا خامني دانيو گم لهم عذاب عليم دانا لين نيل بوغل مو خامني مترلا في الدنيا والاخره تي ادنا الاخره والله يعلم يلا مو خم وانتم لا تعلمون ين نك نيكولين داجي خم ولولا فضل الله عليكم ورحمته tey bu dul woon ngëneelu yàlla ci yéen ak yërmandeem wa anna allaha raufur rahim te yàlla day ku ñeewante ay jaamam la ku yërëm ay jaamam la mi ngi noonu jalla wa ala bokk suñu borom kon mu ne histoire bi de bi mu amee ku ne ci yéen di ko jël di ko jokkalante dégg rek wax nga xam ne ci làmmiñ lay jóge jaar ci làmmiñ dem borom bi subhanahu wa taala mu ne yéen ngi wax ci seen gémmiñ yi loo xam ne amu leen ca xam-xam ay amuleen ci benn preuve bi ngeen di wax wax ju mel noone ngeen jar jortu ne lii nekkul dara fekk na lu màgg la ci yàlla mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jaamu yàlla danga wax benn kaddu kaddu bi nga japp ne dara ni wuc wax ko rey wax ko kaf fekk ni yowmal qiyamah dañ la tabal ci bir sawara lu gëna sori digënté asman ak suuf te yow bi ngay wax kaddu gi japp ne wax nga dara lolo tax mbokk julit bokk na lu doomu adama di wara bayyi xel fu mu toll moy lammi ñam yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wa sallam موز ابن جبل لاج نكو نكا لاي ديف با تبي الجنه موتي سي سوارا منوكو جافني دي واي يومب نا كوكو يالا يومبال يالا يالا يومبال كو سي نون تي لاكو واخ لاغا خامني موي فونك الاسلامي جولي يا كوريا غويو غنا بو منوكو واو خنا موز دو كاي نك مو واخ لا لي غنا كاوي تي غنا غاو يك تي درجه هكا يوم يالا يوني منوكو موي جهاد في سبيل الله bañ demee di dox ba ci yàgg mu ne ko waaw xanaa Muaz doo kaay nag ma wax la nag li tënk loolu lépp mu ne ko xaka yu mu mu génn làmmiñam bu tedd ba téye ko ne ko Muaz wattul ma sa làmmiñ bi mu ne ko yu mu yàlla yónni ndax ñun dañ ñuy jàppe ci li ñuy wax mu ne ko Muaz xanaa xamoo ne waa sawara seen kanam la ñuy dëpp ci sawara seen tànk féete kaw dara warulu ko lu dul seen làmmiñ ya lañ doon wax seen lamiñ ya loolu kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax yeneen ci bi sallallahu alayhi sallam nee na doomu aadama bis boo xëyee cër yépp dañ wax ak lamiñ ay lamiñ ragalal yàlla ci ñun soo jubee ñu jub boo dëngee ñu dëng yonent bi alayhi salatu wasallam ne doomu aadama du jub lu dul xolam moo jub xolam du jub lu dul lamiñam moo jub kon borom bi subhanahu wa taala ne jàpp ngeen waxu leen dara de waaw waaye lu mag la ci yàlla mooy duural gi ngeen duural yeneen soxnab yonent yàlla waaye yéen ñi nga xam ne bokk leen du yéen a ko dooral bi ngeen ko déggee am na lu teewal ngeen ne yeyul ñuy wax ci li na am bokk dégg nga musiba lu tax nga koy nettali di ko gën a tasaare te loolu mbokk mooy li ñu yàlla nattoo tey mooy émission yi mel ni ay tës ak ya mel ni moom ci ay rajo lu bari ci nit ñi doy di nga xam ne amuñu programme àdduna waaye di ngeen di wax ci tis bi mi ngi noonu kay dafa ëmbal doomam bu jegeen kay da doon violé jarbaatam kay jabaru baayam moo ko nopp kay nangam nangam sa bati njaay ay wax yoo xam ne mbokk ko julit du def lu dul yàq dina yàq jukkoo am na ñoo xam ne nii tardé ndékki mu leen gënal tardé émission yooyu mbokk abadan ña toog di sos histoire yooyu di ko wax mbugal mu tar mu ngi leen di ñeel waaye yooyu mi nga xam ne yaa koy dégg di ko répété xamal ne musiba bu rëy mi ngi mi ngi la ñeel tey nag dem nañ ba dans les mass médias journal boo gis dafa war a nekk automatiquement à la page une war na am lu ñuy wax ci culture wax ko politique wax ko sport waaye wax ko it ci la nga xam ne mooy yàq ay mœurs société fokk ñu indi ci cas de viol cas de nangam cas de nangam ngalla way yéen jurit ni buñ leen yóbbaale ci loolu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha muy benn subhanaka sell ñeel na la yow yàlla sa yonenti yàlla mi royukaay ay soxnaam nga ne suñuy yaay lañu ba pare nga ci boole am njaalookat yàlla sell ñeel na la ci loolu sell ñeel na la ci loolu mi ngi noonu lii du dara lu dul dóoral boo xam ne bu màgg la ca mbokk dóoral ay catégorie la tey sunu état yi rek ku ne xam ne ne tey jii ah, tooñ Bilal Thiam yàlla na yàlla dolli ko yiw bokkul ak tooñ président de la république parce que dañ naan président de la république ab institution la képp ku ko wax lu bon nation bi nga ko wax yaa ngi dégg ba même boo xoolee ñiy nekk ci langue politique sax dañuy am différence entre le président de la république ak Macky Sall dañuy wax ay politique naan Macky Sall mais le président de la république kooku moom dafa am ak aar goo xam ne dañ ko ko aar naka noonu it dóoral njaaloo kum mën a doon ci julit ñi musiba la amma nag dóoral ko soxna ci bi sallallahu alayhi wa sallam haza buhtanun azim suñu borom yàlla nag ne gis ngeen li ngeen def ci ñàngaay gis na ki tey maa ngi leen di xupp ngeen di dellul di waxaat lu mel ni su leen ay julit ngeen aaye bi la yaay la imaamu malik doon wax ni képp ku ngeen dégg muy xas yaay Aïcha ca jaaloo seede leen ni ab yéefér la ndax suñu borom yàlla nee na yàlla ngi leen du xupp ngeen delluwaat di wax lu mel ni bu doonte ne ne yéen ay juleen ngeen waaye it gannaaw yaay Aïcha képp koo xam ne gëm na yàlla gëm yoomal axira ngalawaay bu mu dóoral mukk mbokk julitam jaaloo ca amu ca lu leer ànd ak ñeenti seede borom bi nag ne nii laa leen di leeral la samay aaya yàlla mooy ki xam yàlla mooy ki xereñi ñi nga xam ne dañoo bëgg lu bon tasaaroo ci biir jullit ñi ku mel ni abdullah ibnu ubay ndax xam ne ne bu yàqee dero aïcha ak njaaloo dañ koy daal di banaliser te loolu mbokk mi ngi noonu dañ koy daal di banaliser ku wax ñu ne ah ndegam soxna yonent bàyyi njaaloo nagam nangam te loolu loo baari ci jigéen ñi tey loolu la def gis nañ soxna yi sëriñ si ñi ngi xeesal buy wax tall lu leen neex sol ñu jàpp ne grawul boo kese bu doon looloo soxna sëriñ si duñ ko def borom bi nag ne ñi bëgg lu bon tasaaroo ci biir jullit ñi mbugal mu tar dana leen ñeel ci àdduna ak àllaaxira ca mbokk tasaare mbon bokk na ci sunu jamonoy tey jii la gën a yombe wallahi xalaatkat yi lu ñuy wax dañ naan mbon day ci jamono yi paase dafa meloon ne ab zoo xam ngeen zoo day mooy fi ñuy denc bàyyi may ndakaaru gi ndax gaa yi xam ngeen ni gaynde gi fii sañ caam <laughs> yaraax gii boo demoon gis fa gaynde bukk yaa ngi foofu mais nag dañ leen a tëj ku fa demul doo ko gis bu njëkk noonu la meloon te mooy bi ñu créé li ñu tuddee ay cinéma cinéma laajal cinéma Bilal Thiam bi yaa dëkkoon na mboolem gox bu cinéma yi am mooy gox yi gënoon yàqu ci ndakaar demal Grand Dakar fekk fa ah cinéma Roxy fa nekk demal Al boo fa jógee demal Pikine demal Pikine tali bu mag fa fa gën a bon mooy marché tali bu mag cinéma Al Akbar fa la nekk demal tali bu bees fa fa yées mooy cinéma Vox fa la nekk demal Ililal fa fa yées ci tali Ecotra fa la nekk demal Thiawara yi fa fa yées fa cinéma ba nekk mooy bi ñuy doog indi cinéma yi quartier yi gënoon a bon ci Ndakaaru waatal ne mooy yi cinéma yi implanté woon mbokk cinéma yooyu nag tasaaroo na tey kër gu ne am na cinéma kër goo dugg am na cinéma bal ay cinéma ñu <laughs> ngi doon tey kër goo dugg am na ay cinéma lañ daan def ci cinéma yi ay film interdit au moins de 18 ans tey xale bi am ñetti at mooy toog ak maam ji am quatre 90 ans ñoom ñëpp at di seetaan film bi am déet loolee mbokk kon moo taxin wan nga tasaaro tey jii boo delloon 40 ans ci gannaaw xale bu jigéen sol pantalon jaar ci penc mi déli la woon boo xam ne ni mara day taali tey jii pantalon bokk na col gi gën a yiw gi ñuy col am déet banalisé nañ ko lan moo waral loolu nekk na loo xam ne ni mbon tasaaroo na ba kenn ñaawlootu ko borom boobu nag subhanahu wa taala ni maa xam na may mbugale samay jaam yéen xamu leen ko yàlla nee na képp koo xam ne da ko défier yàq ay jaami yàlla yi mbugal ci àdduna mbokk mbugal si multiforme mbugal firiwul daa ñàkk wala daa feebar bokk na mbugal yi gën a tar muy mbugalu xol nga gis un milliardaire ba pare du nelaw guddi soo demee en Occident la cay xaru kenn xamul nu mu toll loolu it suñu borom yàlla nee ne képp koo xam ne su jubluwaay muy réeral jaami yàlla yi danaa la teg mbugal boo xam ne maag yow ñoo koy xam donte ne jaami ñoom xamuñu ko borom bi nag daal di koy tëjee ne bu dul woo la nga xam ne moom muy ngëneelu yàlla jalla wa ala ci yéen day ak yërmandeem waaye yàlla moom borom ñeewante la borom yërmande la ca mooy li ngeen def garaaw na lool waaye nag duma leen ko toppee ndax la jiitu woon ci lu baax li ngeen def mbokk kon histoire bi mu amee dal ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog nañu diiru un mois yonent baa ngi dund fitne bi ay change dund fitne bi xamul kumpa ah yàlla leeralul mbir mi muy won kon ni lu nek won nañ ci bayyi xel mo taxit julit natu jombolo yalla nuko neex lay natto la nga xamé ni mom moy ay jaamam lolu mbokk mi ngi nonu xamna dañuy ñaan cheikh ousmane mu yeggalel ñu xissa bi rek جزاكم الله خيرا borom mu يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إيين نيغم بولين توب جيغو الشيطان واي ومن يتبع خطوات الشيطان كتوب جيغو الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر موم دي ديغلي اي نياوتيف دي ديغلي لبلو لو لبن لو لا ولولا فضل الله عليكم ورحمته بدل وان غني لي يالا تي اغير ما ديم ما زكى منكم من احد ابدا دول وان سل كين تي ين كوم مانا دون ابدا بفاو ولكن الله يزكي من يشاء واي يالا موي سلال كوم نيخ wal moy kuko neex wallahu samiun alim fi yalla moy aji deg moy aji xam la wala ya'tali ulil fadl bum nek mukk di ña nga xam ne ñooy bëri mi ngëne lii minkum ci yéen wassaa ak borom wërsëg yu yaatu yi an yu'tu ulil qurba ci ñuy jox aji jege ñaale yi wal masakin ak ña nga xamee ni ay miskin lañu wal muhajirina fi sabilillah ak ña nga xam ne dañuy gàddaay ci yoonu yàlla wal ya'fu nañuy jéllale mi nga nañuy jéggale wal yasfahu nañuy jéllale ala tuhibbuuna an yaxfira allahu lakum xanaa bëgg leen yàlla jéggal leen wallahu ghafuru rahim kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la mi ngi noon bokk suñu boroom mi ngi tëj xissa bi ay yéen jullit ñi bu leen topp jéegooy seytaan képp ko topp jéegooy seytaane day du ko digal lu dul lu bon ca mbokk seytaane dafa am ay jéego masalan lu mel ne njaaloo bokk na lu waykat yi arab yi di wax mooy nazratun fa ibtisaamatun fa kalaamun fa liqaawun mi nga noonu nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa liqaawun da gis uh, xale bu góor ak jigéen bu ñu dajee mu xool ko xoolu bànneex ba ko yàlla doon tere seytaane puus ko ci beneen mooy muuñ loo na ko bu ko xale bu jigéen bu muuñee mu puus ci leneen mu nuyu ko mu fay ko mu puus ci leneen waxam ak moom mu tontu ko rendez-vous daal di am loolu lay seytaane def du tëb mukk bu la bëggee yóbbu ci bakkaar du jël du la jël mukk jañ la ca nank nank nank nank lay def ak yow ba bu mujj laa alak loolu it bokk na ci di wax loo xam ne su yoon nekku ci borom boobu subhanahu wa taala nag ni xam leen ni ku nekk ci yéen daa war a ragal boppam bu dul woon a ngéneeli yàlla ci yéen kenn munta mucc seytaane boo ko seytaane ba ñuy tabax suñ maam aadama mi ngi toog mboolem génération yi fi jaar ñépp ci kanamam lañ juddoo ci kanamam lañ faatoo ku mel noonu bu la yàlla bàyyeeg moom nga alko moo tax mu ne mun leen koo mucc bu dul woon a ngéneelu yàlla ci yéen kenn ci yéen du sell waaye yàlla mooy sellal ku ko neex mu lay yóbbu ci ñaari mbir defal ay effort lépp loo xam ne yoona seytaane la bu ko jege heure boko fekke ci ben mu puus ci benen ba bu ko jégué waye it foo toll del ñaan yàlla sellal sa bakkan yeneen ci bàyyi salaam bokko na ci ñaanam a allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha yàlla sama bakkan bi yal nang ko jox agaragal yalla yal nang ko selal ya gën ci ñi koy selal yaay ka kay mom yaay ka ka féetewoo loolu la julit war a toll fu mu mën a toll di ñaan yàlla subhanahu wa taala sellal bakkanam ca moytu ci lépp luy tilimal bakkanam ah histoire ba kon terminé na madina yépp jàng nañ suratu nuur yonent bi salallahu alayhi wa sallam am na ñett ñoo xam ne feeñoon nañ ca muy hasan ibnu sabit hasan mi nga xam ni moo doon woykatu yonent bi ca xam ngeen woykat moom dafa yàkkamti lu mu woy lu mu wax waxoon na ci wax kii di na bintu Jaash na xam ne sëru Zeynab bint Jaash la woon te Zeynab bint Jaash ñoo doon xëccoo ah diriyanke kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu comme sëram la moom it ma nga ca woon gannaaw ba Mistah jarbaatu Aboubacar ñoom ñetti ñëpp yonent bi woo leen duma leen Abdullah ibn Ubay naafiq bu mag ba moom jahannama ba koy xaar doy na ko ngi noonu am nañu ne yonent bi amul preuve buñ ko digg muy wax wax ji donte ne yàlla seede na ko xam ngeen ne preuve ci yàlla bokkul ak preuve ci nit ñi am ma ñii ñu am preuve moom ne diw ne kii moom a ko wax kii moom a ko wax ñoom ñetti ñëpp duma nañ leen juróom-ñetti fukki yar yoon Abubakar nag mer ba fees ne Misbax mi nga xam ne maa ko yoral léppam amul lu may fay lu dul tuumaal sama doom njaaloo wallahi ab sabab dërëm dootu ko lekkati yàlla mi nga xam ne moo am yërmande xatta ci ñuy def bakkaar daal di wàccee alquran bi ñu jàng ba ila yawmi din ne ngalla waay bu mu waateti ñi nga xam ne borom yi ngëneel lañu ci yéen ca mbokk ki mooy abu bakar sadiq mboole mu fassiruuna yi dëppoo nañ ne abu bakar la moom la yàlla jox ngëneelu moo gën ci xeet bi gannaaw yonent yàlla muhammad yàlla booleel ko te joxoon ko alal alal jooje nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba muy faatu mu ne tëjal leen bunt yi ndaw yi génn jàkk yépp ba mu des buntu Aboubacar su doon damay jël xarit ci àdduna Aboubacar laay jël muy sama xarit waaye yàlla ma def xarit amul kenn ci àdduna ku ma alalam jëriñ lu toll ne li ma alalu Aboubacar jëriñ loolee kon mu ne nag ñooñu bu ñu waate ci dootu ñu defal njëkk ñii nga xam ñi ni seen i jege ñaale lañu. <coughs> ak ñi nga xame ni ay miskin lañu ca gàddaay ci yoonu yàlla ca ñooñu mistax ca la bokkoon bi lo bi ay wàcce abubakar ne ay yàlla tuub naa la ma waatoon maa ngi waat gis ne ki tey ni lu ma ko doon defal dinaa ko duble mokk ñi muy sahabatul kiram <coughs> maa ngi waat ne lu ma ko doon defal dinaa ko duble kon lii la mbokk suñu borom wax ne ñi nga xam ne borom yi ngëneel lañu bu ñu toppatoonkat yi nañ leen di jéggal ca nañuy jëllale jéggal mooy man nga koo xas ba mu ràpp jéggal ko jëllale nag mooy nga mel ni yëgoo ne mi ngi lay tooñ lii mbokk da ngay gis ne moom la borom bi subhanahu wa taala wax ne nag xanaa bëgg leen yàlla jéggal leen ah kay mbokk diine lislaam yi nga noonu kamaatu diinu tuddaan li nga leble rek moom lañ lay fay jeex na looloo tax ba yéen a ngi dégg ci xutba jumaa yi li nga xam ne mooy imaam yi di fàttali rasul sallallahu alayhi wa sallam lan la dénkoon ay chef yi nga xamee ne nii moo waral suñu xissa tey mooy guddileetul qadr boo dee yàlla dala koo dëppaleel da nga naan allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla yaay jéggal ci da ngaa bëgg a jéggal yàlla na nga ma jéggal loolu it mi ngi noonu soo bëggee it yàlla jéggal da ngay jéggali moo tax suñu borom ne fal ya'fu nañ jéggali wal yasfahu nañ jéllali xanaa bëgg leen yàlla jéggaleen ah kay kon li gën gaaw ci yàlla bàlla say bakkaar moy nit ku la togn nga jéggal ko ci yàlla tax wallahi lolo gëna a gaaw ci yàlla jéggal la say bakkar ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum abou bakkar na akay bëgg na ko akay bëgg na ko luma ko doon defal dana ko dëblee mbokk li moy tay bind bi ñuy jël di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla sellalal ñu suñu bakkan sellalal ñu suñu lamiñ yal na yàlla aral ñu suñu del der yàlla mi setal aisha yal na yàlla setal ñu ci bépp tuuma fi dunya wal akhirah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيغي نونو خمنا مبوكو كوم دانيو جيل تان بو خاوو غودو دانيي باي لاجي رك با يالا داجي لاني فوار صبا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين